l'actualité en continu gars actualité ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam mooy donc Bamba Dieng wala Bamba Dingue Dieng bi nga xam ne gars yi tey moo daal di dugal premier but Lionel Messi le Messi du Paris Saint-Germain ki wax ci Youssouf Sabaly également ki nga xam ne donc Nampalis Mendy mi daal di enchaîner gars lolu moy actualité bi ñu leen di wasareel mais la boobu na gars yi ki xam mooy insolite moy ki di donc euh, Mario Balotelli Balotelli ben journaliste moo la jonne ko Balotelli kan moy le meilleur joueur du monde mu man ñu ne ko Messi nak mu Messi mom du c'est un extraterrestre ko considéré ma ko comme nit kon kooku bu leen wax ci waxam donc pour <laughs> également que Bon, le moom Mais non. ni également gars moi mooy gars yi li may laaj ci mooy tey génération là, bonne génération là, bon les monnaies sax gars wax aussi Toujours ici, yi ci nekk ah ñu ngeen si ak aussi bi ban génération wala bok ban match wala ban événement sportif le, woon gars na li jëm ci suñu gaynde ah, équipe nationale euh, masculine donc bu football U20 yi kan U20 yi commencé nak tay ji lay commencé inshallah au rabi Sénégal nak di jouer ak mi nga xam donc les Super Eagles du Nigeria. bi nga xam nak Sénégal jotoon na leen a gagné la dernière fois bi ñu dajee Sénégal moo leen gagné woon c' était coupe du monde 2019 la woon ca Pologne ki nga xam ne nag mooy donc kii di ndeysaan ah mi ngi nii de ah, Ibrahima Niane ak ki nga xam mooy Sagna ah, ñoom ñaar ñoo dugaloon gis nga ñoom ñaar ñoo dugaloon bi bi Sénégal dooroon ah, ñi nga xam mooy Nigéria deux buts à un mais nag gars yi li ma xaw a naqari ci équipe nationale du Sénégal mooy fédération bi sincèrement man loolu dafa ma naqari gars yi dafa ma naqari moo koy wax sax j' hésite à en parler mooy que ne gars yi nan lañuy amé équipe yi ñu dem bay football coupe d'Afrique équipe yépp seen boy di sol seen maillot original maillot yo xam mo xew manam mo xew jamono ji quoi ngay jël sa maillot yi nga xam mom nga soloon gagné gagné CAN 2022 diko salat alors que CHAN bi ya ngi jor ay joueurs ñu sol joueur locaux yi sol maillot original man c'est que c'est ce que je n'ai pas compris quoi bu fekké na gars yi euh, am ngeen ci lu ci leer ngeen wax ma quoi parce que man franchement suñu équipe nationale bi daal xaw ma nañu ngi yenn yi quoi xaw sponsor yi ñooñu yàpp xaw ñi war def seen liggéey la wala boog dañu màkk jox cër mais aussi wax nag nee demee ba dugal suñu football bi naan ay trouble à l'ordre public ça c'est autre chose ki nga xam ne égal naa la mooy Christian Atsu gars yi démb ca Angleterre ah ba tey tamit ñi nga xam mooy donc club yu fa nekk yëpp dañ ko daal sargal ngeen fii Chelsea la woon seen match bi Southampton ñuy daal sargal ki nga Christian Atsu le joueur kii ghanéen bi nga xam ne moo daal di ñu koy ñaanal di ko aussi bépp doomu aadama bu daal sangoo suuf nga xam ne gars yi moom ngeen gis nii di Graham Potter. ñii nii ah donc parcours am a ngi nii ah donc vingt cinq matchs la joué am euh, li nga xam mooy neuf victoires am li nga xam mooy sept matchs nuls neuf défaites donc trente six pour cent la am ki nga xam mooy Ben Chilwell nag nee actuellement daal gars yi suñu vestiaire yi moom doxul quoi li xew ci biir vestiaire yi doxul dara li ëpp solo mooy gars yi nañu yeewaat parce parce que lii nii moom ñu nekk kan mooy fautif bi loolu daal la gars yi di laaj ki nga xam ne mooy César Azpilicueta di capitaine Blues de Chelsea nag moom dem dafa génn gis naa banaa xamee nag Sékou Mara gis ngeen lii action bi nii si lañ ko yóbboon hôpital gars yi nag fi rek wala suba incha allah rabi ki nga xam ne mooy Aspirou Koita si lay génn li nga xam ne mooy donc gars yi ci hôpital ba daal di demat ci këram ki nga xam ne mooy Oumy Sone nee na d' accord na ne actuellement supporteru Tottenham critique yi ñuy def si moom nee na moom d' accord na si parce que jamono ji daal jàpp na ne il n' est pas à 100 pour cent et que donc day accepté bu ko gars yi di critiquer pour ne jour bi c' est un jour très très humble qui de un minson qui ki euh, hein, nga xam également nag donc qui di Youssouf plutôt Nampalys Mendy Nampalys Mendy nag tey enchaîné na ak ki nga xam donc Leicester Leicester mi demoon ci jouer ci Manchester United après n'a leen jox résultat bi mais en tout cas moom jouer na première mi-temps bi après tamit deuxième mi-temps bi ñu ko daal di remplacer remplacé ko nak ki nga xam moko remplacer remplacé c'est un autre franco-sénégalais la bi pa muy Bakary Soumaré moom moko ko remplacer remplacé moom mi nga xam ne aussi Boukary Soumaré euh, ay moment Sénégal mi ngi ko doon suivre pour mu daal ñëw yor jël nationalité équipe nationale du Sénégal ki nga xam ne aussi nag moom mooy donc le gardien l'un des gardiens di Seny Dieng Seny Dieng dañ leen a dóor 3 buts à 1 mais Seny Dieng dafa def 6 arrêts 6 hein, arrêts décisifs la def 6 arrêts décisifs yoo xam ne day war actuellement le gardien Sénégal aussi il est très en forme Seny Dieng actuellement daal li mu wax rek moom ak daal ki nga xam ne mooy donc euh, Mody Diaw ñoo ci gën a nekk en forme suñu gardien yi donc Gomis moom mi ngi soog a tàmbale ki nga xam ne aussi moom ngeen di gis nii ah xam ngeen ko moom euh, waa Barça ñoo ko moom jaaral ko ñu Milan mais fini dal da fay dafay fas Milan euh, Barça plutôt parce que wa Milan dal fini ni nii nanguwuñoo lever du fas lever plutôt option d'achat bu Jorginho d'Est donc l'américain qui xamne nak ne nag mooy donc Xavi Xavi Hernandez ne actuellement dina waxtaan ak waat ak Lewandowski xol ak mom entraînement na lay démé tout ba mu retrouver forme bi mu yoron ci début de saison parce que temps yi Lewandowski gëj na dugal motax dafa dafa delluwaat rek nek Lewandowski donc là nag indi na qui mais gars yi le Messi du Paris Saint-Germain se nomme Lionel Messi coup franc stratosphérique le dugal un coup franc extraordinaire pour permettre Paris Saint-Germain d'aller de l'île 4 à 3, match exceptionnel. Lionel Messi là pour Gabon actuellement. Donc c'est le leur meilleur joueur de l'histoire du football tay nak ñoom même sen entraîneur Galtier dafa ñëw daal di song léegi nag gars yi si kanam am vidéo may def bobu spécial vidéo la di ngeen fekk vidéo bi yu Messi bi également bu Bamba Dieng aussi coulissu suñu Lyon U20 yi lepp yëpp nañ fi indi ay leeral waxtaan ci également jox leen ko en image ki nga xamne aussi moy Kylian Mbappé mom nak mi ngi konné di battre record 203 hein. matchs avec le joué 150 buts am un ratio de ratio de 0,74 manam bu bu chance de but 0,64 14 pour cent la daal di am ki nga xam mooy donc kii di Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ba léegi ñu ngi wax naan actuellement daal gars yi ñi ngi xalaataat euh, dellu si wàllu ki nga xam mooy donc kii di Thomas Tuchel ne leen Paris Saint-Germain fi ne nii mi ngi xalaataat indiwaat Thomas Tuchel parce que bu le fàtte Thomas Tuchel Paris Saint-Germain la nekkoon Paris Saint-Germain dàq ko mu dem ci même année bi fa nga mooy di Chelsea daal jël Ligue des Champions gars yi nag ko bëgg a indiwaat parce que ki nga mooy ci doyu la Ekitike également nag moomu commencé jur coow selon les médias français ci biir vestiaire Paris Saint-Germain na Paris Saint-Germain booyu gars yu bëri nañ booy bi dafa kii quoi dafa yëg boppam xale bu ndaw la mais dafa commencé yëg boppam boo tax daal gars yu bëri fi ne nii nañ booy bi comportement am neexu leen dara loolu daal lañu ñu daal di wax Neymar aussi il est sorti sur blessure ah Neymar moom sincèrement dañu Neymar bu ma doon yow damay lëlu quoi damay lëlu dem football yi ñëw toog sama kër mais chaque fois bu ñu la tuddee rek nga gaañu on peut aussi également même gaañu gaañu bi lay am toujours au niveau de la cheville mais gaañu gaañu dafa métti moo tax mu génn sur civière xool leen ko fii nii mu ngeen gis image yi nii donc image mu ngoo gars yi ah am sensible moom bu leen xool yi mais gis ngeen ni euh, genou bi daal di lemoon nii Neymar daal daf mel ne jamono ji daal gars yàlla na bañ a garaaw rek mais bu kon ne nii gaw contre Bayern ni mi match retour mu daal di Neymar mi ngi noonu ah, ngeen gis ko tànk bi ni mu lemoon mais aussi ah donc euh, kii nga xam ne également mooy donc Monaco avec Crépin Diatta Crépinio bi daal di enchaîner tey encore ah titulaire encore Crépin Diatta ak bi mu dugal keroog bi bu extraordinaire bi mu dugal kii nag également di Naby Sarr également ah, plutôt Malang Sarr aussi il joue aujourd'hui comme titulaire ki xam ne mooy Jacobs nekk ci banc bi kii di Bamba Dieng Dieng Bamba Dieng gars double le premier but am gars yi sur penalty tout à l'heure aussi dans l'autre vidéo di ngeen gis nga xam penalty bi en image aussi Bamba donc il a marqué son premier but ci li nga xam donc euh, cette équipe Lorient nga xam premier but, temps ñoom ñu deux buts à zéro donc bambadien qui aujourd'hui a marqué donc sur penalty euh, penalty encore bu rafet booy moom macha il est serein xam na nu door a penalty et tout et tout non gars yi tout à l'heure vous allez regarder donc li nga xam mooy bi mu dugal kii aussi di Kaiser magnifique Bambali man football ballon d'or africain deuxième meilleur joueur mondial ci saison bi ñu génn ak ballon d'or bi moom gis ngeen ko fi moom Upamecano entraînement Sadio Mané daal dafa yàqamtu woon sax moom dugg ci terrain boo gisee xam ne Kaiser man dafa yàqamtu woon dugg ci terrain bi ay duur ay paajal ay yaaleeg lépp am na ci gis ngeen fi mu wekkee gardien bi ne ko jaaral na le deel dool xool la ko wax doo xool gis ngeen ko gars yi mi ngi noonu donc kii di Kaiser magnifique maa nga entraîné ak ci joueurs yi nga xam nak ñong ko ñu ñeen ñu wuñu euh, donc di di bi samedi bi ñi tamit également donc amuñu temps de jeu de doy et tout donc gis ngeen ko Sadio Kaiser magnifique Mané qui est donc de retour gars c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir wooy de like wooy de di abonné on se donne rendez-vous tout de suite beneen vidéo bi kal ko on s'abonne et surtout gars ñu partage vidéo yi